كيما بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجهت لي هدايا بالمبرات أمست تطيب نفسي كي أميل لها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 mbokk yi ñoo ngi sant yàlla borom bi tabaraka wa ni mu yelle ci jëmmam ji te as njaamam lott ci lool di julli tey sëlmal ci sangub ñaari way ndijji bopp yi sayidul kawnayni wa toqalayni wal fariqayni min orbin wa min ajami sallallahu alayhi wa di ñaan xéewali yàlla ak yërmandeem ak i leeram yal na yàlla sotti ko ci kawam moom mboolem ay ñoñam ak ay saxaabaam ak ay soxnaam ak mbooleem ña ko toppoon ba làq ngërëmam di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di nuyoo nuyoo bi nga xam ni moo gën a tedd te gën a sell ci nuyoo yi te mooy nuyoo lislaam bi ñu yàlla boole mooy nuyoo bi waa aljanna di nuyoo mooy nuyoo bi tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke te composé woo baatam yooyu ma tudd léegi te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa suñu nuyo ak suñu ziyaara yooyu ñoo ngi ciy jiital boroom ngëneel a cheikh mouhamadul muntaqa bun cheikh mouhamadul bachir di ko ñaanal yàlla sàmm ko yàlla dëgëral ko yàlla kattanal ko ba mottali mbooleem yéene yi nga xam ne moom la naal liggéeyal ko Serigne Touba moom daal nay naal di yeggale tey naalaat di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox a Cheikh Aboubacar Sy Mansour mi nga xam ne moo amee euh, jataayu xadra al malikiya fatiwaawoon ñoo ngi koy ñaanal bu baax yàlla sàmm ko yàlla mottali mboolem ay yéeneem ci kër maam Seydi Xaaji Malik radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakaatihi waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu lañuy jox Baay Cheikh Tidiane Niass mi nga xam ne moo amee jataayu maam Abdullahi Niass waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu la ñuy jox Baye Cheikh Mahi mi nga xam ni moo wuutu Cheikh Ibrahima ñas ca Medina Baye waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu la ñuy jox Baye Assane Seck ca Canaba waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu la ñuy jox Cheikh Bekaay ca Ndiassane waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox Thierno Basir mi nga xam ne moo amee jotaayu maam Cheikh Omar Fouti waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu la ñuy jox mbooleem umma islami bi yëpp. téléspectateurs yi nga xam ne yéen a safoo saxoo di topp seen émission keppaaru mag ñi ñoo ngi leen di nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo mooy si si seen télé Rewmi TV ngeen man koo am ci canal 108 waaye man koo topp it ci 97.5 ci rajo réew mi FM ngeen baaxoo ko ànd ak seen bokk sañ Baara Mbacke ci seen émission bi ñuy wax keppaaru mag ñi ñu di ci waxtaani suñuy mag mag ñan mooy ñi nga xam ne bi yàlla yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam leetar bi mu ko joxoon alayhi salaatu wasalaam bay ci waaram ginnaawam e, xulafaa ur raasidun yi bay ci seen waar ginnaaw bi taabia yi bay ci seen waar ba taabia taabia yi bay ci suñuy maaham suñu maam ñooñu nga xam ne liggéey bu réy bi nga xam ne liggéeyal nañ ko lislaam ci yónente boobu nga xam ne yàlla moom la yónni yoon yónente bi alayhi salaatu wasalaam mag ñooñi ñoom lañuy fàttaliku di ci waxtaan di ci waxtaane seen i jaar-jaar waaye di ci waxtaane seenu mbind waaye niñ ko baaxoo defee léeg-léeg ñu indi téeréb Sëriñ Tuubaa boobu ñuy wax majmua bi nga xam ne dafa dajale ay rasail ak ay wasaaya maanaam ay leetar ak ay dénkaane yu am njëriñ yoo xam ne Sëriñ Tuubaa xaadimu rasul radiallahu anhu daana ko daana ko dénkaane waaye ginnaawam a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne doomi Sëriñ Tuubaa la ci ak xilaafaam moom moo dajale mbind yooyu waaye dajale it leetar yooyu bindulu ko waaye moolu ko ngir ñu tasaare ko yaatal ko ba jullit yépp man cee jot dañuy wax ni ne yabu yabga zamanan baada kaatibihi waaye wa saahibul xatti taxta al ardi maddu fuunu loolu mooy lan mooy bind dafay des ginnaaw ki nga xam ne moom moo ko bindoon ay ati ati ati at waaye nag boroom donte dangay mujj sax ba nga xam ne ki nga xam ne moo ko bindoon moom làqu na wane na ginnaaw waaye mbind mi moom dafay des mooy alxattu yabga zamanan baada kaatibihi mooy nit ki saa yu xasee bind lam bind moom moom ci boppam man naa dem bàyyi fa mbind ma waaye mbind ma moom dafay des wa saahibul xatti taxta al ardi madfun mooy moom mën naa dem ginnaaw mën naa dem bàyyi mbindam ginnaawam waaye mbindam mi mu bàyyi ginnaawam yi du te day am njariñ ba tey di jariñ mbindeef yi Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu ku ci ne xam na ne suñu boroom mayoon na ko xam-xam mu mën a bind looloo tax mu ne wax naa ngeen dégg waaye bind naa it bàyyi leen fi lu mat a xam jàngale naa ko waaye lu mat a wax it bind naa ko waaye lu mat a def it euh, bind bàyyi naa bàyyil naa leen ko kon loolu jàngale naa ko loolu mooy tegtale ne am mbindam kon toujours ab làmp la boo xam ne saa yuñ ci tegee suñ tànk incha allahu taala danañ ci jariñu àdduna bépp yi man cee jariñoo euh, fiñ ci tolloon ci njàngale miñ doon jàngale ñu ngi toll ci bunt boo xam ne mi ngi ciy wax ni jataay maanaam toogaay fréquentation juróom tekkiwul ne rek juróom yooyu kese juróomi fréquentation yooyu kese moo am waaye ça veut dire que ne mën naa nekk juróom maanaam al xam xamsa loolu tekkiwul ne juróomi jataay kese moo am waaye dafa wax ne jataay mën naa doon juróomi mbir mën naa doon juróomi jataay juróomi jataay yii bu mu ci bu mu ci mën a doon ñett yi benn mëtu cee toog waaye ñaari yi it mën naa toog muy ban ak ban jataay yi bi ci njëkk mooy mu mujaalasatu saxiir maanaam toog ak ay gone loolu Sëñ Tuubaa li mu bëgg a jàngale mooy nit ki bu fekkente ni fréquentation li ci ëpp ay xale lay toogal seenum xel màggagul kooko jàppal ne du ay atam dolliku dolliku dolliku moom ba tey xelum xaali lay yor mooy ba tey am xelam du génn ci fo du génn ci caaxaan moo tax mu ne jataay moom juróom yii la rek benn muy jataayub gone te jataayub gone yu wat waddi ila laabi wa wi moom li muy xëcc jëme mooy que ni nit ki ki buy toog ak ay gone lu àdduna yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg am xelam du paase ñami toogal ndax olof yi dañuy léem ne war ma sab xarit ma wax la ki nga doon maanaam mooy nit ki ki nga xam ne toujours moom lay fréquenté su fréquenté day jeexital ci moom loolu sax Sëñ Tuubaa waxoon na ko ci téeréem boobu ñuy wax na jox daayil xaaj fa kullu xarinin bil muqaarini yàqtat yi kon dañ ciy déggee ne ndekete kon kuy fréquenté ay gone ba tey loo dina yàgg yàgg yàgg am xelam xelum xale rek lay doon maanaam ñami fréquenté fa seenum xel toll rek moom foofu la am xelam du yem mu teg ci beneen mooy jataay ak ay jigéen mujaalasatu nisaa moom wal xiyaas billah yuwaddi ilal maasiya looloo tax ngeen gis gis boroom xam-xam yi di wax ne xale su amee ay ñeenti at juróomi at maanaam ci li lislaam santaani mooy bu fekkente ni xale la saa yu xasee fer ba am benn at ñaari at commencé xam dara dañoo war a teqale seeni i tëddaay seen tëdd mooy bu fekkente ni ay góor lañ mën nañoo bokk benn lal buñ tëdd waaye nag kenn ku ci nit ñoom na sol yére waaye it bu fekkente ni soluñu yére it buñ bokk benn balaan loolu loolu ay ay jàngale la yu am solo yoo xam ne lislaam moo ko jàngale nga xam ne xale bi su amee ñaari at commencé xàmmee commencé am ay yëg-yëg lislaam dafa santaane ne nañ teqali seen i tëddaay maanaam buñ boolee góor ak jigéen benn mat laa déedéet nañ boolee ay góor ak ay jigéen man nañoo bokk benn lal buñ tëdd waaye buñ bokkee benn lal buñ tëdd kenn ku ci nekk nañ ko solal yére waaye it kenn ku ci nekk bu mënee am mbalaanum boppam moo gën su mënta am boppam kenn ku ci nekk na sol yére ba pare ñu sàngal leen menn balaan loolu loolu li muy tegtali mooy li Sëñ Tuubaa di wax ne jataay jigéen day xëcc nit ki jëmee ko ci ak mooy yàlla looloo tax nga gis xale bi boo amee juróomi at ñu naan nañ ko teel a yóbbu daara wala nañ ko yóbbu ci kër goo xam ne ay góor a nga fa parce que xale boo ko bàyyee muy fréquenté ay jigéen su woowaa bu màggee day jigéene rek fa ndax fa kullu qaridin bil muqarini yaqtadi kon dafay tekki ne kon li siñ Tuubaa di wax ne jataay ak ay jigéen nit ki bu ko tàmmee wal iyaasu billahi taala day mu da koy mu xëcc jëmee ko ci ak mooy yàlla wal iyaasu billahi taala ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ni jigéen ak góor safara la ak caas safara la ak caas te xam ngeen ne mbokk yi safara ak caas jataay buñ bokk booy rek moo ci gën a bari waliyaasu billahi taala mooy ndimbalul seytaani la muy ñaar beneen ba ca topp mooy majalisatu sultaan yu waddi ilal kibar loolu dama koo xool sànq sama xel dem ci eh, ndeysaan maam Abdullahi Wadd góor gi Abdullahi Wadd dafa waxoon lu am solo am solo am solo loo xam ne xam-xam la xam-xam la boo xam ne ku ne mën na koo jariñoo dafa waxoon ne xaalis ak pouvoir xajut ci boppu gone waaye moom la sëñ Tuubaa di junj fii nee na bokk na ci jataay yi nga xam ne maanaam nit ki mënu cee jëriñu waaye da koy xëcc jëmee ko ci ak rëy mooy jataay ak ku am pouvoir ndax àdduna bi loolu la fi xew léeg-léeg da ngay gis koo xam ne maanaam ay sëriñ lay fréquenté ba mu yàgg mu mujj di solee ni ñuy soloo mujj sax moom ci boppam day mujj eggale boppam foo xam ne ñoom sëriñ si nga xam ne ñoom kilifa kilifay diine yi nga xam ne ñoom la ñuy wormaal ñoom egg ñu foofu te loolu lu nekk ci millier bi la ñu koy gis da ngay gis koo xam ne maanaam euh, euh, ca dëgg-dëgg yàgg a wu nit moo ko wàll jikkoom su boobaa bu fekkente ni melo wu baax la ba tey baax na ndax maa ngi ciy ñëw léegi mooy ñaari fréquentation yu mujj yi waaye. fréquenté wu ak buur maanaam ko am pouvoir da ngay gis koo xam ne da ngay gis koo xam ne maanaam bi dara du dara rek yéen ñaar yéenay bokk attaaya su ngeen xëyee yéenay bokk yéenay bokk naan attaaya su ngoon jotee yéenay ànd dem entrainement bu guddi jotee yéenay bokk seetaan télé waaye bu benn ministre faloo def ko directeur de cabinet wala chargé de mission wala mu am benn poste lu mu tuuti tuuti moom déjà li muy jëkk def moom mooy day changer numéro. ñam daan naan toog di naanal yi ñoom day daal di tàmbalee day daal di tàmbalee déconnecté wu foofu ci jataay boobu maanaam fekkati ko ci mbedd mu toog ak ñoom di naan attaaye moom dootoo ko gisati ñaareel bayit mooy que ne boo dikkee këram pour nga gis ko problème la ndax day wut daal di wut garde corps kon looloo tax sëñ Tuubaa naan jataay ak nituk àdduna day xëcc nit ki jëmee ci ak rëy day xëcc nit ki jëmee ko ci ak rëy ndax nit ki it mën naa amee ndombal tànk lu ne waaye du ta du ko tax a rëy mooy que ne moom du yëg li mu am maanaam du yëg ni man diw laa woon waaye tey toxoo naa ci post boobu doon président wala doon naa ministre wala doon naa wala doon naa wala doon naa moom doo loolu day jàpp ni ab liggéey la fonction la boo xam ne dafa dikk ci moom waaye bu ko bàyyee bu ko wàccee ginnaaw moom dem ci leneen maa ngi ciy joxe misaal toujours ci koo xam ne damay bañ a tudd tur waaye lu am solo am solo am solo ndax nekk ci gouvernement di liggéey doon ministre jóge ci delluwaat ca fonction ba nga nekkoon bu njëkk muy jàngale nga xam ne da nga doon jàngale ñu jëlee la ca def la ministre nga génn ci ministre gi delluwaat ci classe yi loolu loolu lu am solo am solo am solo am solo am solo la acte la boo xam ne maa ngi koy saluer kon loolu mooy li Sëñ Tuubaa di wax ne jataay ak euh, ak nitu àdduna wala borom pouvoir léeg-léeg day xëcc nit ki jëmee ko ci agré yi kon loolu it lu mat a bàyyi xel la beneen bi ci topp mooy jataay ak boroom xam-xam gis nga nit ki ki mi ki mu bokkal ab fréquentation su yàggee mu jël dara ciy jikkoom fokk lu xar yi nii bil muqaarini yaqtadi maa ko wax léegi moom la wolof yi di léeb ndax léeg-léeg li ci léebi wolof yi li ëpp ci léebi wolof yi alxuraan la juñ traduire <laughs> maanaam alxuraan la juñ traduire mooy que ne maanaam waxinu alxuraan la mag ñi tëggee waxinu wolof. wan ma sab xarit ma wax la ki nga doon loolu mooy li al mooy lii boroom xam yi di wax naan nit ku ci nekk dafay roy kami àndal fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi léeg-léeg ma wax ko léeg nga dégg ñu ne ay du yam ci boppu boroom te loolu alquran la wattaqu fitna la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa alquran ko wax ay du yam ci boppu boroom moom mooy waxinu wolof yi kon loolu mooy li boroom xam-xam yi di wax ni léegi nit ki ki muy àndal moom mooy li si Tuubaa di jàngale naan fréquenté boroom xam-xam dafay xëcc nit ki jëmee ko ci sàmm mooy que ne bu dee boroom xam-xam la bu jëfee xam-xamam maa ngi bàyyiloo xel ci ne inna allazi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funun sëñ Tuubaa nee na ba téere yu bari taxutaa doon boroom xam-xam kii dafa jàng nangami téere jàng na téere sàngam jàng na téere sàngam jàng na téere sàngam taxu koo doon boroom xam-xam ñu ne ko kan mooy boroom xam-xam mu ne téere yi lu mu bari bari bu àndut ak ragal yàlla du xam-xam mënee su ko tuddee boroom xam-xam mooy moom am naw jàng am am naw jàng waaye amul xam ndax xam dafay ànd ak at taqwa muy ragal yàlla tabaraka wa kon buñ ne borom xam mooy koo xam ne am na xam-xam te jëfee xam-xam ba sëñ Tuubaa nee na ko ku koy fréquenté da lay ñod di jëmee la ci ak sàmm lan mooy sàmm lan mooy sàmm mooy di. loo sol nga xool ba xam ndax lii lu yàlla gërëm la looy lekk xool ba xam ndax lu leew la looy naan di xool ba xam ndax lii lu leew la looy tudd ci saw làmmiñ nga segg ko wëlbati ko wëlbati ko ba mu wóor na la ne bu génnee lu baax lay doon nga door koo génne gis ngeen làmmiñ làmmiñ garaaw gim garaaw moo tax suñu boroom wutal ko 32 dents fukki fanweeri soldaar ak ñaar ñu ñu tëj ko waaye jëlaat aw tuñ tegaat ci ngir lan lu ciy génn boroom da ko war a wëlbati togg ko ci xelam wëlbati ko ba xam lu yàlla gërëm la ndax bu ma ko waxee du jur dara ndax bu ma ko waxee diw du ci gis boppam bam wóor ko ni lii bu ko génnee lu yàlla gërëm lay doon du blessé benn doomu aadama yit mu dóor koo génn ci gémmiñam kon moo tax Sëñ Tuubaa ni jataay ak boroom xam-xam day ñoddi nit ki jëmee ko ci ak sàmm waaye jataay ak ko xam yàlla nag day defar ab xol al aarifuuna di di leen fréquenter day defar sab xol gis ngeen nit ki nit ki day toll ci boroomam foo xam ne day saf yàlla moom foo ko gis day saf mooy que ne foo ko gisee rek sa xel ci yàlla rek lay dem waaye sëñ bi àdduna àdduna nit yi àdduna yii rek maanaam àdduna jii rek ñun ñun nit ordinaire yii rek léegi léeg da ngay takkoog nit ngeen jaxasoo jaxasoo goo xam ne ku la gis xelam ca kooka lay dem danaa la ana diw ah waaw. asama ak borom bi tabaraka wa taala nit ki day mel ak boromam noo xam ne ku ko gis rek xelam ci yàlla rek lay dem kon taqoog ku am ngërëmal yàlla wala ku xam yàlla tabaraka wa taala day xëcc nit ki jëmee ko ci xam yàlla wala boog day xëcci nit ki jëmee ko ci xol bu defaru ndénkaan bi ci topp mooy dafa wax ne Serigne Touba Xaadimu Rasul radiyallahu anhu ci atum mille trois 39 atum 1339 xam naa du sori 1920 ci njeereem bisu aljuma yamook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru rajab dafa wóolu nit ñi dafa wóolu mbooloo mi ci pénc mi moom Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bi ñu dajee mu jiite leen ñaari rakkaa mu ne damaa bëgg dama leenoo bëgg a jiite ñaari rakkaay yoor yoor maanaam bisu ajjuma la 1920 ci njaareem sëñ Tubaa Xaadimu Rasuul dafa woolu fere yi ba mbooloo daje ci pénc ma mu ne leen dama leenoo bëgg a jiite ñaari rakkaa ay yoor yoor waaye nag dama leen di digal ngeen yéene ci tuubal seen borom tabaaraka wa taala tubbum nangu bi mu leen jiitee ba noppi daf leenoo wax ne leen maa ngi leen di dénk ngeen di tuubal yàlla ci waxtu wu ne ndax kat nit ki gis nga fii ci dénkaan bi ci ni ma ko waxee ci arab daf cee indi ñaari jumlay arab yu neex raxiba fii ak raxiba an daf raxiba fii mooy nit ki lu mu bëgg raxiba an mooy nit ki lu mu bañ nga xam ne ñaari baat la yu bokk nuñ leen di bindee te baat bay topp ci seen ginnaaw mooy séparer seen maana raxiba fii mooy lépp nit ki lépp lu mu bëgg waa asura tam jafe ko Sëñ Tuubaa nee na maa ngi leen di dénk mu tuubal borom bi tabaraka wa taala ndax que nit ki saa yu tuubalee yàlla tuub googee dana ko àggale ca la muy wut na mu ko bëggee la ko yàlla di defaree tabaraka wa taala beneen bi mu ne lépp loo xam ne raxiba an nit ki lépp loo xam ne bañ na ko te xamul nu muy def ba du àgg ca loola mooy que ne moom it encore na tuub bu tuubalee yàlla tabaraka wa taala yàlla mooy dox digganteem mag la muy bañ te du ci am benn coono daal ciy teg ne bu leen tee tooñ seen boroom waaye bu leen tooñ seen moroom bu leen tooñ seen boroom waaye bu leen tooñ seen moroom dal ne tooñ seen boroom mooy bàyyee topp ay ndigalam te su tax te sutuxlu ci ay tereem sutuxlu mooy lan al iqtaa mooy ad duxuul ad duxuul mubasharatan mooy kane yéen da bàyyee jëfe ndigalu seen boroom waaye yemoo leen ci mooy da ngeenoo nuur ci bàkkar mooy da sax ci toujours lu ngeen di dugg rek lu yàlla bañ lay doon tabaraka wa taala mooy waqati xaamu nëx yi dañ ne xoolal njàngale mu leer mi yàlla de dafa doylu daf ne bu leen tooñ yàlla ndax yàlla dafa doylu waaye bu leen tooñ seen moroom ndax seen moroom dafa ñàkk maanaam dafa aajowu yàlla dafa doylu lum mu doyloo mooy que ne yàlla amul lu ko doomu aadama di defal mu jariñ ko dara yàlla amut lu ko doomu aadama di defal mu jariñ ko dara waaye amut doomu aadama yi lu mu koy bàyyi li mu wàññi ko dara waaye nag li tax mu naan mën naan leen bu leen tooñ seen boroom mooy sax ci mooy yàlla day waral jaam bi lu mu def suñ boroom da koy xëppaat ni ko soxlawuma ko mooy day waral raddul amal mooy lu waay bi ma lu waay mën a def loo defal borom bi borom bi da koy jël xëppaat la ko ne soxlawuma ko nga xam ne kon yàlla ñun liñ koy defal doyewu ko dara waaye defal gi mu nangu gi day waral ëllëg buñ dajeek moom duñu ñu rus maanaam liñ koy defal du ko yokk du ko wàññi waaye buñ ko bàyyee it du ko wàññi dara waaye nag li tax def gi baax defee ko ni mu ko bëggee baax day tax ëllëg buñ dajeek moom duñu rus kon mu ne bu leen tooñ seen boroom ndax seen boroom kat dafa doylu te tooñ seen boroom day waral lu ngeen ko defal mu xëppaat leen ko ne leen soxlawuma ko waliyaasu billahi taala waaye bu leen tooñ seen moroom ndax tooñ seen moroom kat li koy waral mooy kane sëñ bi yow da ngaa da wut may wut da ngay root may root te ku ñu ñaar ñëpp ku ci ne boo sañoon feesal waaye man feesalu ma yow feesaloo kon kay fexeel ba li ngay yor nang ci yam li ma yor ma yam ci waaye saa yoo duggee ci tooñ ma la nga yor danaa ko nangu booleek li ma yor waliyaasu billahi taala moo tax sëñ tubaa njàngale mu leer moo mun a jàngale mooy yàlla dafa doylu li ngeen koy defal doyu ko dara waaye seen aadama dafa soxla kon nag na ngeen ni moytu ci li ngeen yor daal di wax ne nit ki saa yu tooñee moroomam lu mel ni jëw ko wala ŋàññi ko wala saaga ko wala lekk alalam maa ngi fàttali ne mbokk yi raddul mazalim ñaar la am waalan wa aaraadan bi xayri mayin moom la sëñ tubaa waxoon nit ki ñaari façon delloo tooñaa ngi rek moo am sa digg ak sa moroom benn nga lekk alalam nit ki saa yoo lekkee alalam amut noo ko mën a fayee lu dul delloo ko alalam amut déedéet da ngaa lekk alalam moom mi ngi dund jëlal alal ji nga fay ko ko moom faatu na jëlal alal ji nga xool ñi nga xam ne ñoo koy dond nga dem ni leen diw sàngam kat dama koo amee loon bor sàngam bor baa ngi nii ñaar yi rek moo mën a nekk su fekkente ni moom faatu na te xamoo kenn ña koy dond it faatu xamoo kenn ku bokk ca moom koo xam ne mën na koo doon su boobaa moom jëlal alal ja saraxeel ko ko te yéene ko bo yool bi waaye nag alal moom mbokk yi alal rek a koy fay mooy dangaa jëloon alalam alal rek koy fay mooy demal fay ko ko su faatoo nga jox ko ñu koy dond ña koy dond bu fa nekkul nga jël alal ja nga saraxeel ko ko te yéene yàlla te yéene ko yàlla jox ko yool bi waaye beneen bi mooy bu dee côté der nit ki saa yoo ko xasee wala nga ŋàññi ko wala nga wax ko naka su dul noonu su boobaa moom lii rek a fi nekk mooy bu dee mi ngi dund demal nga baalu ko àq su fekkente ni dundatul nag foofa moom ndono amu fa yoon mooy lan nga nan nga ko mën a fayee bor bi mooy ah jéemal a feesal sa compte rek ngir bu ëllëgee nga fay ko looloo tax jaam bi fu mu toll dafa war di jéggalu yàlla waaye di jéggalu mbokki mbindeefam moo tax a Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne moom alhaaji Mouhamadou Fadel mi moom mii nga xam ne moom lañ tuddee immeuble bii ñuy waxee ak yéen sëñ baara bi mu toogee xalifa bokk na ci lim saxaloon ci jumaa ji mooy saa yu jullee ba noppi day joxe ndigal ne nañ tuub te sàkku sarax te sàkk sarax te baloon tey àq lu waay yéene boppam na ko yéene moroomam gis nga kàddu yooyu yu am solo fàttali gu am solo am solo la am solo mooy nañ tuub nañ nañuy tuub te baloon te àq te lu waay yéene boppam na ko yéene moroomam loolu te sàkk sarax yooyu yu am solo am solo am solo ndax tuub mooy tax yàlla jéggal la baalonte ak mooy tax sa moroom jéggal la sàkk sarax mooy tax a am kere ëllëg yama xiyaam lu waay yéene boppam yéene ko moroomam mooy tax ba demee fa sa kanam boroom siggi ndax illaa man ata allah bi qalbin salim de yàlla lu fa waay lu dul xol bu xol bu xol bu mucc doo fa doo la fa jëriñ dara illaa man ata allah bi qalbin salim looloo tax ñeenti yi alaaj Mouhamed Lamine Bara daan digle wallahi laasim mooy defar adduna mooy defar alaxira ndax tuub mooy tax yàlla jéggal la sa baalonte àq mooy tax sa moroom jéggal la sàkk sarax mooy tax a am kerek ëllë keruk ëllëg yawmal qiyaamatul yéene boppam yéene ko moroomam mooy xalbun salim mooy tax boo demee fa kanam sa borom doorus kon mbokk yi lu mat a bàyyi xel a ngi noonu kon loolu la sëñ Tuubaa wax waaye daf cee teg yi ne nit ku ci nekk na doyloo ayibi boppam walif muy xool ay ayibi moroomam mooy li ma doon wax léegi rek léeg-léeg olof wax waxin woo xam ne day gën a neex a dégg ci olof waaye waxinu alquran la xanaa xooloo sa bopp <laughs> xanaa xooloo sa bopp wa fii anfusikum afala tubsiruun alquran a ko wax wa fii anfusikum afala tubsiruun ci suratu zariyat loolu alquran a ko wax mooy xanaa xooloo leen seen bopp mooy kenn kenn ku ci nekk xoolal sa kilo liibar bi nga yor soo ko xoolee jéemal a xool noo koy effacé moo gën ngay lijjanti liibar bu jàmbur wa fi anfusikum afala tubsiruun kon ci la Sëñ Tuubaa teg ci nag daan ne naa leen ngeen tuubal yàlla waaye te rafetal seen digganteeg ñi leen yàlla booleel ngeen dëkk ak ñoom moo xam ñu am cërub àdduna ci moo xam dañoo am cërub àdduna ak bu mën a doon wala ñu am cërub alaaxira loolu nag mbokk yi lu neexa lu am solo am solo am solo ci moment bi ñu toll ñu war koo jàngat mooy ñi ñu yàlla booleel ñu am ay cëri àdduna nañ rafetal suñu diggante mooy kane ñoom nañ leen respecté ñoom ñu respecté ñu ñii ñu yàlla booleel moo xam président la moo xam ministre la moo xam député la ñun am na lu war suñ digg ak ñoom mooy ñoom ñu respecté leen mooy cër bi leen yàlla jox ci ñun nañ ko nangu cër bi leen yàlla jox ci ñun nañ ko nangu ndax naka naka jekk loolu mooy am alxaaji mouhamadul faadal doomi sëñ tubaa la woon ak xam-xam beeg barke beeg baatin bi ko yàlla may lépp nanguloon na président Senghor ne mooy président nanguloon na ko ne mooy mooy kilifa réew mi waaye président Senghor it nangul ko ne ko moom moom am na parti bu mu jiite ci diine ji muy tariqa muridiya kon loolu moo war suñu digg ak ñoom mooy que ne président bi lépp loo xam ne décidé na ko par décret saa yu xasee jàll nañ jàpp ne ah kii la yàlla booleel te lii la décidé waaye it ministre bi bépp dogal boo xam ne jël na ko jaar ko fa mu ko war a jaar ne lii lay def nañ xam ne lii la ñu yàlla nattoo sëñ Baara Xuréje sama turandoo daana wax ne nit ki lépp lu mu fekk ci kilifaam mooy wërsëgam mooy que ni ki la yàlla booleel nga am sens su dajee ak moom kooku mooy sa mooy sa sens mooy ñun jamono bii li ñu yàlla booleel mooy président bi fi nekk moom la ñu yàlla booleel moom mooy kilifa réew mi. ñi ko yàlla boole ñuy ab gouvernement am ñooñu la ñu yàlla boole moo xam ñu suñu nattu ñoo xam muy suñu xéewal loolu la yàlla dogal loolu la sëñ Bara Khourédia daan wax ni nit ki lu mu fekk ci kilifaam sant yàlla te xam ne mooy sansam jamono ngi ñëw it suñu borom danañu joxaat ñeneen kon lii sëñ Tuubaa di dénkaan mooy li war suñu diggante mooy que ne nañ yéwénante mooy ñi fi nekk ñun nañ leen respecté waaye ñoom it nañ ñu respecté de mooy ci fi yàlla teg muy jiitum réew décret bu muy jël wala waaye na respect na xool ñi ci ginnaawam waaye it ñi yàlla ñi ko yàlla booleel ñu yoral ko liggéey bi muy waa gouvernement bi ñoom it lu ñuy décidé nañ bàyyi xel ñi ci seen ginnaaw député yi it saa yu demee assemblée lu ñuy woote nañ bàyyi xel ci ne seen jëmmi bopp yóbbu leenu fa seen kàddu bopp wu leen fa nañ bàyyi xel ne dafa am mbooloo mu nekk ci seen ginnaaw nañuy sédd ñoom ci li li leen yàlla boole ak ñoom mooy kon ñun dañ loolu la tubaab bi di wax le respect et mooy maanaam ñun dañ leen respecté ñoom ñu delloo ñu ko mooy nit ki lépp lu bëggul ko ko ko delloo waru koo joxe mooy ñun dañ leen war a respecté waaye ñoom ñu respecté ñu loolu mooy jagal àdduna loolu la sëñ Tuubaa wax ne mboolem li ci nit ñi di jàmbat ci côté àdduna ak côté àllaaxira mi ngi juddoo ci ñàkk tuubal yàlla mu ngi juddoo ci ñàkk tuubal yàlla kon ñu bàyyi xel ci ne mbokk yu tuub day defar am réew fa qultu staghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa alaykum midraara wa yumdiddukum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara yonent yàlla noox ba muy woo aw nitam ni leen kaay leen ngeen tuub bokk étape par étape la ko doon def waaye bokk na ci étape bi mu leen doon woowee mooy kaay leen tuub yàlla jéggal leen su leen yàlla jéggalee dana defar seenum réew mooy nu muy defaree seenum réew mooy day tax na taw bi gën a bari yursil sama aleykum midraara waaye su ngeen tuubalee yàlla it yàlla dana dolli seeni alal yàlla dana leen may ay doom way jaal lakum jannatin yàlla dana leen may àjjana ëllëg way jaal lakum anhaara yàlla dana leen defal ay dexi meew xoolal kon loolu ndekete tuub day defar am réew moo tax sëñ Tuubaa ni lépp ci li nit ki di jàmbat àdduna ak alaaxira mi ngi juddoo ci ñàkk tuub kon mbokk yi dénkaan bu am solo daal ci teg ne li tax ma di leen digal ngeen tuub tuub mooy li nga xam ne mooy xëcc mbégte waaye tuub mooy li nga xam ne mooy jeñ ay lor daal ne lim maa ngi leen dénk ngeen tax takkoog tuub ndax dana maanaam dana soppi seen digg ak seen boroom jëmee ko ci situation yi gën a rafet dal di ne nag lii ma leen di wax maa ngi leen koy digal ginnaaw bi ma ko jarabloo ginnaaw bi ma ko jarabloo mooy que ni wala yunabbi'uka mithlu xabiir la ci teg mooy que ni lii ma leen di digal ginnaaw bi ma ci jaaree ba xam lim ma jari laa leen koy door a digal mooy que ne dama ko ñam ba xam lim saf door leenoo woon leen kaay leen mos li ma mos ci waxinu wolof mooy que dama ko jarablu ba xam lim saf dama ko mos ba xam lim saf door leenoo woon ne leen kaay leen mos li ma mos wala yunabbi'uka yu wala yunabbi'uka mislu xabiir mooy que nit ki du la xibaar lu dul li nga xam ne maanaam am na ci loolu ku dul ki ko xam mënula koo wax ki ko ñam moo xam la muy saf mooy comme li wolof yi di wax naan ki ko macca xam la muy la muy saf mooy que nit ki lim ñam la xam lu muy saf kon loolu di dénkaan yu am solo am solo am solo am solo waaye gis nga comme li ma doon wax léegi ne jataay yi mu doon wax moom sëñ Tuubaa radiyallahu anhu fee dafay wax ne jataay juróom la mooy benn toog ak gone te day xëcc nit ki jëmee ko ci fo ba ca topp mooy toog ak jigéen day xëcc nit ki jëmee ko ci mooy yàlla ba ca topp mooy toog ak àdduna wala nit yi jaxasoog nit yi àdduna day xëcc nit ki jëmee ko ci ak rëy ba ca topp mooy toog ak boroom xam-xam day xëcc nit ki jëmee ko ci mu sàmm diggam ak boroomam baneen ba ca topp mooy toog ak ku xam yàlla te day kooka da koy xëcc jëmee ko ci rafetal ab xolam fii mu waxaat ne jataay juróom-ñaar la maanaam fréquentation am na juróom-ñaar ba ca njëkk mooy fréquentation fréquenté ab wàlliyu te loolu ak fréquenté boroom xam-xam ak fréquenté patron maanaam comme boroom alal ak fréquenté koo xam ne dafa ñàkk pauvre walla ak fréquenté koo xam ne dafa réer ak fréquenté jigéen ak fréquenté gone waaw mooy juróom-ñaari jataay yooyu bi ñu njëkk mooy nee na fréquenté wàlli yu wàlli yàlla wàlli yu nag lu naqaree xam na mbokk yi ndax xam yàlla gën a yomb xam wàlli yu ak a naqaree xam xam yàlla moo gën a yomb xam wàlli yu sëñ Tuubaa nee na fréquenté ak wàlli ñaar ñaari ci judd muy zuba az zuhdu wal baraka nee nit ki bu fréquenté wàlli yàlla da koy da koy xëcc jëme ko ci muy gën a dëddu àdduna di gën a bàyyi àdduna waaye da koy jox barke bi topp mooy jataay ak boroom xam-xam su boobaa ñaare ci juddoo mooy hi mooy al ilmu wal xikma mooy xam-xam ak sagesse mooy xikma maanaam mooy wax joo xam ne dafay gàtt te bari njariñ maanaam wax ju gàtt te làmboo njariñ yu baree baree baree baree bari al ilmu wal xikma nee na jataay ak ku yàlla jox alal ñaara ci juddo mooy al xirs war raxba maanaam xir ak bëgg maanaam ak euh, euh, raxba ni ko mën a firee mooy foqule rek at tama mën naa ko firee at tama mooy que day tax ndax ki nga ki ki la ki nga xam ne yàlla dogal na su tolloo waleen situation àdduna moom suñ borom da ko jox alal ju baree bëri toujours booy toog ak moom moom ci fi mu toll fi lay waxee ak yow mooy ci façon yére ya muy sol oto ba muy war ay dépense am am na ci lool bu koy wax di ko nga di ko dégg su fekkente ni doonoo ku yeewu yow da ngay jàpp ne tey tey tey ma war a àgg fii loolu dana pousser nit ki jëmee ko ci def lu mu wër te def dana ko jëmee it ci bari ay bor dana ko jëmee ci yu baree bari bari baree bari ndax day tax moom toujours day bëgg a yéegal niveau am àgg kee fa mu àgg te ñoom ñaar yàlla boolewu leen niveau buñ toll kon jataay ak koo xam ne ku yàlla mane gan la maanaam jataay ak boroom alal Sëñ Tuubaa nee na bokk na ci ñaar yi muy jur mooy xër ak bëgg ak maanaam ak bëgg bëgg alal daal maanaam ak bari ay mbébét beneen bi ci topp mooy. jataay ak ku pauvre maanaam koo xam ne alalam bari amut dara amut bari amut alal sëñ Tuubaa nee na ñaar lay jur mooy sant yàlla ak doylu gis nga contraire u kee moo dikk fii booy jataay ak borom alal lu bari lim lay yóbbu mooy xër ak jéem a yéegal sa niveau foo àggut foo toll sa bopp bi day fees dell ak ay mbébé ay bu ma amoon nangam ay bu ma amoon nangam damaa def nangam damaa def nangam te yow sëñ bi suñu borom keelam suñu borom mooy séddale. moo jox kee la ko neex jox la li ko neex nee na nag booy toog ak koo xam ne suñ borom maanaam ku la gën a suufee ci wàllu alal ñaar yi lay jur mooy day tax ngay sant yàlla foo toll ndax saa yoo waxtaanee ak moom yow dangay ngay yëg ne li la yàlla defal moom amagu ko day tax it nga doylu day tax it li nga am dala la doy sëkk sa du nekk ci la keneen am waaye jataay ak ku réer ab réer ab jaahil Sëñ Tuubaa nee na ñaar yi la mën a jur mooy fàtte ak mooy yàlla walhiyaas billahi taala day tax nga fàtte yàlla day tax it nga dëkk ci mooy yàlla parce que ku réer moom xamul dara toujours ci da réeral rek ngay juyeeg sa borom waaye day tax da lay fàttaloo it yàlla tabaraka wa taala mu ne jataay ak jigéen nag walhiyaas billahi taala ñaar yi rek lay lay waral mooy addullu wal maasiya mooy torox taange ak mooy gu bari bi ci mujj mooy jataay ak gone booba nee na ak dal ak daxku wala ayib ba maanaam ree yu bari la lay jural ak fo mu bari te alquran neewoon nañu fal yadhaku qalilan wal yabku kathira sadaqallahu alazim mooy dee leen ree tuuti waaye dee leen jooy lu bari ngir yàlla dee leen ngir adduna waaye dee lu bari ngir yàlla tabaraka wa taala sëñ Tuubaa daal ci teg ne ku jublu sa borom suñ boroom ànd ak yow waaye ku jublu saytaane it saytaane teqalil ak sa borom mooy ku jublu sa boroom sa borom ànd ak yow foo mën a nekk waaye ku jublu saytaane it seytaane teqalil ak sa boroom tabaraka wa taala kon mbokk yi loolu dénkaan bu am solo am solo am solo am solo la ñu dikkaat ba tey ci beneen dénkaane boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko wax ab ab laa bi ab laabiire la dafa wax ne lii ak laabiire la goo xam ne muhammad ibnu muhammad ibnu habiballahi moo ko bind mooy muhammad doomi maam Mor Anta Sali doomi maam Balla Aysa muhammad bun muhammad bun habiballahi daal ci teg na asamahu taala wa waffaqahu mooy yal na yàlla musal ko waaye nag te dëppale ko ak li nga xam ne moom lay wut wa waffaqahu wa mooy yal na yàlla musal ko te dëppale ko li nga xam ne moom lay wut diggam ak boroomam ci jëm ci boolem nit ñi nag daal ne inni laa uhibbu kasra qaatiri ahad ahadin maanaam i'lamu bi anni laa uhibbu kasra qaatiri ahadin Sëñ Tuubaa nee na damaa bëgg a xamal nit ñi ne man kat bëggumaa bëggumaa yàq xalaatu kenn ci nit ñi ndax lan fam képp koo xam ne dangaa bëgg dikk ci man ci lu dul ndigalul sa kilifa tama xam ne sa kilifa dikk gi ngay dikk ci man nam koy gisee bokkut ak ni ma ko gisee maa ngi sàkku ci yow bul ñëw fal jetrukil ityaana dar an lil sedd maa ngi lay sàkku ci yow ngir yàlla bul ñëw wax nañ ne ci njaareem am na ku masa bokk ci benn tariqa àndoon ak kilifaam dikk siyaare kilifaam gi dikkoon ci sëñ tubaa bi muy dellu moom bi mu dikkaatee ba agsi waat dafa jëlaat otoraay demaat fekkaat sëñ tubaa njaarim ne ko damay jébbalu si sëñ tubaa ko ana ki nga àndaloon mu ne ko maga fa mu ne ko yëg na la mu ne ko déedéet mu ne ko dellul ba am ci ndigalam loolu li muy tegtalee mooy kane sëñ tubaa moom moom xaadimu rasul musta propagande yàlla suturaal na ko it mësta bëgg dara rey kenn moom ci yàlla la woote ku ñëw mu ànd ak yow ngir yàlla waaye nag képp koo xam ne da ñëw ci lu dul ndigalul say kilifa nee na saa yoo jugee ngir bëgg a ñëw baye boo nga dem tàggu say kilifa bañ bàyyi la wa ilaa nga toog ndax lan ngir daw yàq gi yàqoo gi nar a dox digganteem ak diggante sëñ Tuubaa ak këri diine yi moo tax sëñ Tuubaa li mu wax nii lu leer la maanaam moom dafa wax de képp koo xam ne aju nga ci man man ngaa siyaare ku la neex man ngaa siyaare waliyu yàlla foo ko dégg sàkkul barke ci moom ndax moom sëñ tubaa radiya anni sibtuhu jilaani sibtuhu tijaani maanaam mboolem waliyu yàlla yi fi jaar mboolem mu jëddi duun yi ñoom ñëpp ko gërëm fa kullu yu yuridul murida li xadratillahi wala yahida sawaun intama ila ila al jilaani aw intamaa li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum qataan ala sawaabi loolu lu leer la mooy wérdu waay mën a yor rek baax na ndax ñoom ñëpp ci njub la nekk lañ nekk wëlbati ko waxaat feneen ne ñoom Cheikh Ahmad Tidiane Sarif gërëm na ma Cheikh Abdou Khadir Jilaani gërëm na ma Cheikh Aboubacar Aboul Hasan Assaasili yi gërëm na ma mboolem waliyu yàlla yi gërëm nañ ma loolu kay lu leer la xulafaawul arbaa gërëm nañ ma loolu lu leer la looloo tax mu ne nag comme ñoom damaa sàkku seen ngërëm ba am ko bu kenn jóge ci ñoom di ñëw ci man te amoo ndigalul ka nga jóge képp koo xam ne jug nga ngir bëgg a dikk ci man maa ngi sàkku ci yow ngir yàlla na nga ci am ndigal ndax kat képp koo xam ne dangay ngay woote da may woote woo ne man maay sa kilifa ci topp yàlla ak topp rasulullah alayhi salaatu wasalaam maa ngi lay digal ni lépp loo xam ne day ñaawal njortu waa àdduna wala nit yi suuf yi maa ngi la koy bàyyiloo ndax kat jàmm asalaama wal aafiya moo gën lu dul ñoom ñaar jàmm gën lu dul ñoom ñaar gis nga ndenkaan bii toujours war nañ koy jàngale ci mboolem waxukaay yu àdduna yi rawatina murid yi war nañ di leen ko jàngal mooy képp ku jug ngir bëgg a wutib sëriñ sëñ Tuubaa nee na tàggul sa kilifa képp koo xam ne it war ngaa jóge feneen bëgg a dikk ci leneen sëñ tubaa nee na tàggul sa kilifa maanaam lim ciy jàngale mooy que ne ñaara ngi nii yoo xam ne dara ci àdduna jëru ko mooy bàyyi kilifteef moom daana wax ne moom sëñ tubaa ne ñaara ngi nii yoo xam ne dama ko fekk ci mbàkke waaye defuma ko ci muy fonk kilifa ak teel a mokkal nee na ci askanu mbàkke laa ko fekk waaye defuma ko ci kon waxam ji ñaar yi yiñ ci mën a déggee bari na waaye ñaar yi ci ëpp solo mooy que ne kilifteef mooy kilifteef mooy nit ki lépp lu muy def da cee war a am digalul kilifaam ndax dana tax la muy def mu am barke muy benn ñaari bay mooy que ne liñ naan daw coow daw coow mooy que ne wane ne moom lim yor ci yàlla la jóge tey da koy joxe ngir yàlla kon jërul ñaawoo maanaam jërul lenn luy niru ak yàq di dox digganteem ak kenn moo tax mu ne dara an lil sidd mooy képp ku jug ngir bëgg a dikk soo ci amul ndigal toogal daal di ne nga xam ne loolu ki war a ñëw te gu ko lay wax kim yilif mu ne ko képp koo xam ne yaa ngi woote wane may sa kilifa ci topp yàlla topp yonent bi aleyhi salaatu maa ngi lay digal lépp luy wane nit ki di ñaaw njort ci man ngir yàlla bàyyi ko Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu waxtaan wu am solo wax ju am solo la daan wax mooy foo toll naan est-ce que sëñ amul moroom fexeel ba ku la xool xam ne sëñ tubaa amul moroom da koo gën loolu mooy képp koo xam ne. man ngay tuddoo ne maay sa kilifa fexeel ba lépp loo xam ne day waral nit ki di ñaaw njort wala di xel yaar ci man ngir yàlla doxal digganteeg digganteeg sa diggante loola maanaam doxal digganteem ak loola mooy que ne wa yoral melokaana woo xam ne walla yoral doxin wala yoral jikko joo xam ne ku la gis xam ne Sëñ Tuubaa amul moroom mooy ñàkk moroomu Sëñ Tuubaa gi du lu ñuy wax waaye Sëñ Tuubaa nee na lu ñuy jëf la waaye xoolal lim ci teg mooy ñaara ngi nii yoo xam ne ñoo gën adduna ak li ci biir mooy asalaam wal aafiya muy jàmm akuk dal moo gën adduna ak li ci biiram mooy jàmm akuk dal moo gën adduna ak li ci biiram xam naa ne li ma dese ci waxtu bariwut dañuy indi ay benn benn njariñ rek yoo xam ne yu am njariñ la yoo xam ne sëñ Tuubaa daana ko diga diga digalee euh, ci ay dénkaaneem sëñ Tuubaa daa wax ne képp koo xam ne da bëgg li nga yéene sa digg ak sa boroom ak li nga yéene sa digg ak mbindeef yi suñu boroom di la ko defal maanaam dangaa bëgg a am sa yéene sa digg ak yàlla waaye am sa yéene digg sa digg ak mbindeef yi te mu yéene ju baax nag te mu yéene ju baax nag mbokk yi alxuraan lépp a ngi ci nit ki léeg-léeg mu jaar ci alxuraan defar waaye léeg-léeg mu jaar ci alxuraan def ab safaan te loolu xol bu laa moo koy def mooy que ni nit ki saa yu jaaree ci alquran def lu baax yàlla dana ko fay tuyaaba waaye saa yu jaaree ci alquran def ab safaan it ndax xam ne ñaari bàkkaaram koy xaar mooy bu demee borom bu demee ci borom bi dana ko layoo tabaraka wa taala waaye kam ko def it bu demee ca boromam dana layoo kooka kon sëñ képp koo xam ne am nga yéene àggale maanaam am nga yéene joo xam ne bëgg nga yàlla defal la ko sa digg ak yàlla wala nga am yéene joo xam ne bëgg nga suñu borom mottali la ko sa digg ak mbindeef yi saxalal guddi gu jot nga jàng suratul furqaan tabaaraka lazi nazzala al furqaana yaakaar naa ne saar la woo xam ne ñu bari xam nañ ko waaye juróom-ñeenti yoon ginnaaw jullik farata gu soo amee soxla soo bëgg yàlla fajal la ko sa digg ak yàlla wala sa digg ak mbindeef yi saxalal saa yoo jullee farata ba pare nga jàng suratul furqaan juróom-ñaari yoon ñeenti yoon Sëñ Tuubaa nee na boo ko defee sa yéene ji nga ci fas sunu borom tabaaraka wa taala dana la ko defal saa yoo bëggee yàlla jéggal la maanaam bis bu yàlla sàkk saa yoo bëggee effacer sab liste moom diggante sa digg sa borom liñ nga ci def lépp saa yoo ko bëggee effacer sëñ Tuubaa nee na guddi gu jot jàngal sooratu duxaan sooratu duxaan ñi xam alquran boo xoolee kaamil bi danga xam fi mu nekk loolu moom sooratu duxaan moom yaakaar naa ñi ko xam bari na fa ay ji ma doon wax ci sama émission bii jàll ni ci la nekk. fiiha yufraqu kullu amrin hakim fiiha yufraqu kullu amrin hakim kon sooratu doxaan ñu bëree bëree bari xam nañ ko wala boog mboolem ñi xam alquran xam nañ ko sëñ Tuubaa nee na boo bëggee yàlla jéggal ba nga mel ne bis ba nga juddoo woon ci ay bàkkaar guddi gu jot del jàng del saxal di jàng sooratu duxaan guddi bala ngaa tëdd daal ciy teg ne soo bëggee yàlla defal la wërsëg yàlla yokk sa wërsëg nanga saxal di jàng sóoratu waaqia guddi gu jot sóoratul sóoratul waaqia maanaam saar la woo xam ne ko xam suñu kilifa yi wala boog ko xam boroom xam-xam yu baree baree baree baree bari dañ koy faral di jàng guddi gi sóoratul waaqia maanaam saar la woo xam ne Sëñ Tuubaa nee na ku saxal di ko jàng guddi gu jot sunu boroom dana yokk sa wërsëg soo bëggee suñu borom musal la ci fitnay bàmmeel nag sëñ Tuubaa nee na del saxoo di jàng sooratul mulki del saxoo di jàng sooratul mulki sooratul mulki saar la wu am solo am solo am solo woo xam ne am na ci ñoo xam ne sax guddi gi dañ koy def sajida ak mulki mu doon ñaari saar yoo xam ne nit ki bu jullee farata guddi gi naafila bu jullee gee ba noppi naafila gu am solo am solo am solo la muy ñaari rakaa yoo xam ne benn bi sooratu sajida nga ciy tari benn bi nga tari ci sooratul mulki ñaari rakkaa yooyu ak am solo alayhi salaatu wasalaam nee na ku ko saxal bu ñu lay tàbbal ci bàmmeel maa lay nangul samay loxo maa lay nangul sama bopp ci sama ñaari loxo muy sóoratu sajda ak sóoratul murki waaye it sóoratul murki dana tax nit ki bu faatoo li ñu naan mbuugalum bàmmeel suñu borom dana ko ci musal lan mooy mbuugalum bàmmeel mooy nit ki su faatoo bañ dugal ko ci bàmmeelam ba wan ko ginnaaw ba dox juróom ñaari jéego day commencé dégg ñi ko roboon ni ñuy ñibbee nit ki bu faatoo day mel ne ku nelaw xamatu dara ci àdduna waaye nag buñ ko suulee ba ñu ko suul wan ko juróom-ñaari dox juróom-ñaari jéego ci ginnaaw wan ko ginnaaw dox juróom-ñaari jéego day daal di yeewu commencé dégg rëpp rëpp yi daal yi maanaam nit ñi seen rëpp rëpp yi ni ñuy doxee ci suuf si di di di diñ dellu ca kër yi su boobaa am na ñaari malaayka yuy dikk xotti bàmmeel bi suñ xottee bàmmeel bi lu ñuy def mooy jëmm ji dañ koy yëkkati toogal ko suñ ko toogalee dañ koy laaj kan mooy sa boroom kan mooy sa yonent lan mooy sa téere lan mooy sa diine kan mooy sa boroom borom bi tabaraka wa taala looloo tax suñu boroom di wax naan yuthabitu llahu alladina amanu bil qawli thabiti fi lxayati dunia wa fi l axira wa yudillu llahu zalimin walxiyasu billahi taala mooy nit ki lim nekkee woon ci àdduna suy mala ñaari malaayika yooyu noonu buñ xottee bàmmeel bi muy munkar na kiir dikk di ko toogal ko di ko laaj su boobaa lam doon dundee ci àdduna suñ borom lay woowee lay saxal lay saxal ci aw làmmiñam nga xam ne lam nekkee woon ci àdduna moom loola lay tontu looloo tax suñ borom di wax naan yuthabbitu llaahu bi aamanu bil qawli thaabit mooy suñ borom dafay saxal ci seenu làmmiñ ci wax ji nga xam ne moo sax mooy kan mooy sa boroom mooy borom bi tabaaraka wa taala kan mooy sa yonent alayhi salaatu wasalaam lan mooy sa téere alquran lan mooy sa diine muy l'islaam wa man yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin yàlla nee na jàpp leen ci sama diine ji te mooy lislaam ëllëg ku fi dikk diine joo fi indi judul al judul lislaam man yàlla duma nangu sa diine falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin mi ngi ci suuratu ali imran mbokk yi lii moo doonoon seen émission keppaaru mag ñi tey lii lañ leen indiloon muy ay bind ak yi jàngale yoo xam ne ñu ngi ko jukkee ci téere sëñ Tuubaa boobu ñuy wax majmua euh, bi nga xam ne moo dale moo dajale ay wasaaya ak i ajwiba ak i rasail maanaam ay tontu ak ay leetar yoo xam ne ci sëñ Tuubaa xaadimu rasul la jugee waaye muy ay tomb it yu am solo am solo am solo lépp loo xam ne yëkkati nañ ko fi daal yàlla na yàlla def ko barki ñu jariñoo ko defal ñu dégg ak topp lu ci jub yàlla lu ci dëng mata di doomu aadama la di ziyaare bu baax a baax a baax waa saam gu sëñ baara xuréeja toujours maa ngi fàttali it ne ñoom ñoo ngi bàyyi xel émission bi fu ñu mën a toll ak mbooleem koo xam ne yaa ngi safoo di saxoo di topp télé bii di réew mi TV waaye émission bi nga xam ne mooy keppaaru mag ñi fii la doon amee ci Dakar Solida imaamul alhaji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké seen émission keppaaru mag ñi la seen bokk sëñ Bara Mbacké ngeen ci àndaloon lu ci jub yàlla la lu ci dëng mata di aadama la Cissé moo nekkoon ci wàllu euh, xarala gi ba ngeen mën a dégg te mën a jot suñuy kaddu te man koo jariñoo lu ci jub yàlla lu ci dëng ma ta dig doomu aadama la in uridu ila al ma stataatu wa ma tawfiqi ila billah wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ahmad sulayman bi sarfi al masiyat kayma taqoda simamin lirrasiyat adan li tasdada qalbi uznaba مدتها وودعت لي هدايا بالمبرات أمسدت طيب نفسي كي أبيل لها